fan rek a des ñu daal di àgg ci li nga xamante ni moom mooy korite gi ci marché yi daanaka mumbaay gi ma ngi ko fees dell ci ay nit ci clients yi dem di ñëw ku ci nekk di jéem a xool na nga def ba jënd li nga xamante ni moom ngay waajale feet bi waaye nag li ci gën a métti mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykat yi ñoom daanaka gisuñu xaalis ndax fi mu nekk nii clients yi ay benn benn la ñuy ñëw. waaw wàcc ay korite bi ñu ngi nii di ko dund de di ko dund affaire yu métti lool te tar client yi ñu ngi ñëw wala. waaw client ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu ngi ñëw daan gën a xuma nii mais sant yàlla déwén nag daaw ak ren bokkul quoi. période julli ki ah ñun de ñu ngi góorgóorlu rek waaye xam nga rek marché bi moom daa xaw a dëgër ndax réew mi neexul loolu moo tax. ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaye xam nga rek xaalis moo amul ci dëkk bi loolu moo tax. ci jaaykat tissu yi moom mu mel ni lu ci bëri ci produit yi daanaka ñëwagul li ñu teg rek mooy yi nga xamante ni moo nekkoon daaw ci conteneur yi ak seen dépôt yi moom la ñu daal di génne teg ko waaye teewul yi ñu ngi ñëw di moom euh, tissu yi xew yu bëri wàccuñ ndax conteneur yu bëri wàccuguñ. conteneur yu bëri bari dañoo bloqué wu te affaire yu bëri dafa seer dafa seer daanaka li desoon daaw rek lañ vidé ci conteneur yi desoon daaw daanaka lañ vidé ndax ñun boo xoolee mo brode euh, yi ñuy jaay ak wax euh, yi ñuy jaay ak mbaseeris yi ñuy jaay yëpp daanaka suñu jàpp yi la mais dañoo xool xam ne dëkk bi amul xaalis ñu wëlbatiku wàññi ko ba mu tolloog nit ñi nga xamante ni loo yor dañ ci solo sa njaboot solo ci solo solo sa njaboot. waaw mais ins bi tisi sax dafa xaw a manqué ins bi dañuy taxale rek yi moo gën a dox sax bassin brode yi. yi jar trente mille ñun ñu koy jaayee quinze mille moo gën a yomb période bi moo gën a nekk à fond quoi ndax booy xool bi ay valla mbasin ay brodé waaw. mu mel ne atum ren bi moom marché yi donte nit ñaa ngi ñëw waaye xaalis tax na ci ñu bëri ci nit ñi jëndaguñu. seer na trop bagage moom macha allah seer na trop mais nag yàlla baax na góorgóorlu rek. waa daalu xale am na quatre mille am na deux mille cinq cent am na 1500. Ah, gis nga si prix yi nii ay produits yi seeru mètre 1300 lañ koy jaay te produits yi ñu ngi ko doon jaayee 2500 mètre 2500 kon bu ñu demee ba ko jaayee mètre 1300 xam nañ réew mi fi mu toll. mbasee bee mbasee riis la ñu ngi ko doon jaayee mètre 5000 tey ñu ngi koy jaayee 2000 kon xam nga kon xéewal am na te it dañuy jàppale nit ñi te xam ne feebar bi jàpp na nit ñi te it euh, xaalis bi koom-koom bi lu ci bëri demul dem dem na. waa fi mu ne nii bagage moo amut. fi mu ne amut daaw sax booy xool corona bi moo ñu sonaloon rek booy xool ñu bari sax xamul mooy loolu mais bi dee ren bi sax tane na. côté gi ci biir Sénégal waaye bu mel ne biir marché yi fi nga xamante ni jaay tissu yi ak dàll yi daanaka clients yi ñu ngi ñëw waaye kenn jëndul dañuy romb rek daal di laaj li nga xamante ni mooy prix yi li ko waral mooy sooxantal bi nga xamante ni corona bi andi na ko waaye tamit li nga xamante ni moom mooy ñàkkum xaalis ci biir réew mi.